te lu dagg lu leen morom bi lay fekk te vraiment mënu ma am lu leen gën a rëy ñoom samay mbokk mënu ma am lu leen sut donc bi ma yéegee gis mbokk yëpp daje sa grand théâtre dafa seen seen yaram na ci kontaan nañu vraiment kontaan waaw war na mën a nekk war na mën a nekk parce que euh, yàlla dafa dogal euh, faramaare ni bëri na mais xëy na je suis choisi man la ñu xëy yàlla dogal na jamono ji li waare di produire mo ëpp waaye taxul waale mom moom Faramareen de ñun ñëpp ñoko ko bokk ah ñoom tamit ñu nangul mako vraiment heure fu ñu ma woo rek ma wuy sa ndax ñoom ñooy sumay kilifa je suis content d'être venu en tant que fils en tant que le chanteur du peuple je suis venu faire plaisir aux téléspectateurs le 11 avril inchallah allah bés Sénégal du du parce que nous ne l'anniversaire ni anniversaire Wali Balago fête nationale C'est devenu une fête nationale. le 11 e anniversaire parce que Corgi de day ñëw dañ koy def confirme persiste le chanteur du peuple. Euh, je je le suis et je ferai de mon mieux pour y rester pendant très très longtemps. Inshallah